على الواسطة العزمى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكدل جيم بكدل كدي جنوب يسنتي يال جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñoñam ak i saxaabaam euh, dellu si nen fas yéene waxtaan ci ni ko defe woon ci ajuma ji ñu génn ci mbiru euh, Abdul Muttalib mu mel ni ñu ngi woon ci waxaada jurhumu baytallahi ginnaaw bi nga xamante ni Ismaayil génn na àdduna comme niñ ko waxe woon mu takk ci fekkoon mu denc ci giir gi ñuy wax giir jurhum bu mu génnee àdduna am na ca doom bu ñuy wax naabit gannaaw demuk Ismaayil nag naabit ay nijaayam dañu am doole ci nguur gi mbir ma daldi féete ci ñoom comme niñ ko waxee woon ñu nekk fa nekk fa ba jikki ak mbewte tax ñuy feeñal ak mooy ca Kaaba ga ba yàlla xëy alak leen xiirtal ci ñoom xeeti feebar yu ñàng ba loolu rey ci ba feebar ba rey ci ñoom lu bari ba amatuñu kattan amatuñu doole yàlla xëy yabal ay noon ci seen kaw noon yooyu lañuy tuddee banu bakrit nu abdi manaat ibnu kinaana اك غشبان اك غبشان إيه، مو ديغي نعم، نعم، كو بوك تي غير خداعا نيوم نيو دال تي سين كو نانغو ماك لولا سيد حاج ماليسي رضي الله عنه وخني وحذجرهم بيت الله رازقنا من بعد نابت الأصفى من الرحيم الخذاعة بذوا مكة غلبا من بعد تسليط ناغف في أنوفهم وقيل بل سلط الله الرعاف عليهم كان إذ جاء في إفناء جلهم لولا تخونيتم عمرو ممغا خمنتني ممو يلفون مكة تبقون تجير جرهم ak kañaan taxoon na mu sakk teenu zamzam sakke woon ko ay kéwél kéwéli or ak i mbubbi koŋ ak i jaasi barab ba réer e waaye la tax mu def ko moo di ne noon yooyu di banu bakri ibnu abdi manaat ibnu kinaana ak xubshaan bi ñu ñëwee ba génnee ko dafa mer sakk teen ba daw ba mu dawee itam sadd na ay bayit dem mettit lu ci lañu ko def naqarlu ko lool ngir xudaata dañu ñu nguur gi di nekk seen loxo ba ñu àgg ci seen benn maam bu ñuy wax xolay xolay li moomu nag ba mu génnee àdduna ci la mbir mu mujj nag دوغ تي لوخو غير قريش لوليتم لا غور غي دي ليرال ني وقل خذاعه موم لا غور واخني وبي روزمزما عمرو طمها حسدا اذ اخرجوه لجول كان في الحرم وفيه يجعل اغلاقا وفيه يجعل أعلاقا يضن بها وقام ينشئ يشكو شدة الألم إن الخذاعة ما زالوا يلون إلى أن جاء قصي حليلا خاطب الكرم حبي وقد نال من تزويجها نعما أبناء أعلين أقمارا لقومهم بعد حليل قصي قام مجتهدا لأن يلي الأمر فهر أكرم القثم وملني كون giir xusaacata ñoo fa nekk gannaaw bi giir jurhum demee loolu lépp waxtaane woon nañ ko ci ajuma ji ñu génn waaye xusay mi bi mu ñëwee di labat si doomu xulayl doom ji nag mu ngi tuddoon xubbe yàlla dogal xulayl sawar lool ci may ko xusay ndax dafa bokk ci famille bu baax te booba leeru yonent bi mu ngi ci moom ku ko ji sopp ko mu mel ni sëy boobu yàlla def na ci ay bant bant yu am barke te di banti leer moo tax góor gi ne وقد نال من تزويجها نعما ابناء اعلينا اقمارا لقومهم ان دوم يو خامني گن نانو لير سخ وير دوم يوي نك حليل امون مانام دوم يوي nga xamanteni قصي امنكو تي حبه مودي عبد الدار اك عبد مناف اك عبد العزي اك بنين دوم بني وخ عبد لول ابن اسحاق بن متخ فلما انتشر ولده فلما انتشرت أولاده وعظم شرفه وكثر ماله أهلك حليل بنغا خمنتني دم نبا موم قصي دومي باري تباركيل لخ على النار موي دوم دوم على الله ci yi gën a foor bu njëkk ba lu alal ji bari bari bari te amuloo doom day mel ni amuloo dara moo tax lu dërëm yi bari bari rekk fokk doom ñëw alal ji soog a mat ba nga xamante ni nag yàlla may na ko doom yi doom yu tekki ba pare may ko alal ju bari ba pare defal ko daraja ju kawe yàlla dogal xulay lu moomu nekkoon buuru màkk génn àdduna moom xusay nag ci taxaw taxawaayu pastéef taxaw ci dogu ak takkaay bu mat sëkk pour jéem a nangu nag màkk teg ko ci loxo yi ngir Quraysh gi mu bokk foofu nag la gis moom ni moom daal moo gën a yeyoo ci yilif kaaba gi ak mbiru màkk looloo tax mu waxtaan ak euh, mu waxtaan ak ay kilifa ci giir Quraysh ak Bani Kinaana mu ne leen daal di ma bëgg moo di ñu jéem a jóg dal ci kow giir Xudaa ak Bani Bakr pour nangu nguur gi ñoom itam ñu nangul ko ko moo tax bañ ko defee itam yàlla defal leen ci ndam ñu daldi nangu nguur ga ba ñu nangee nguur ga nag yàlla dogal léegi moom xusay mu nekk kilifa ak Makka ndox manqué ñu yitte woon ak gas ay teen waaye taxul ñu gis teenu zamzam sonn nañ lool ci am ndox danañu gas waaye nag du tee li teen yi di bari bari taxul daal mbir mi demee noonu ba yàlla dogal Abdul Muttalib ñëw bokk ci doomu Xusay yi bokk ci yàlla dogal moom itam bi tuuram ñëwee mu aye yilif Makka ci la ko ak gént feeñu wan ko barab boobu di zamzam di barab bi nga xamante ni moom la amru sakkoon ndaw te bokkoon ci giir Jurhum kon niñ ko waxe bu mu jógee ànd benn doomam bu ñuy wax xaaris ñuy dem pour gasi teen ba ba ñu gase ba nga xamante ni tayyu Ismaayila feeñ na moo di pind ba ci la waa Màkka daw ñëw ne ko nag mbir mi ñoo koy bokk raama ishtiraakan bihi al aqwaamu min xasadin lamma bada tayyu Ismaayila aslihimi raama sàkku na ishtiraakan na ma bokk ak dégg nga na bokk bihi ak bihi ca teen ba ñen ñoo ko sàkk woon al aqwaamu nit ña ñoo ko sàkku ci abdul muttalib min xasadin ngir iñaane ko rekk teen bu rëy boobu di zamzam te yàlla ko ko woon ci gént kañ lamma bada tayu ismail ba nga xamante ni bindu ismaayil boobu feeñ na te moo di teen ba aslihi mi kii seen maam foofu nag coow lu rëy am na fi mel ni bi nit ñi ne daal dañuy bokk ak Abdul Muttalib teen bi te kañaan rekk tax waaye ku ne xam na ni teen bu réer ay ati at eh, yàlla won ko ko ci gént won gu yéeme mu ànd ak doomam ñëw di gas ñu naan ko looy gas mu ne zam-zam lan ma won ñépp foog na day caaxaan ndeke boobu leeru yonent bi nekk ci moom moo tax géntam di gis lu mu gént rekk gis la moom Abdul Muttalib moo tax ba nit ña xëccoog moom mbir mi mu ne leen d'accord naa ci xëccoo bi waaye li mu bëgg moo di ne ngeen wut attekat bu ñu atte ñu ne ko nen dem ci kaahinatu bani Saad nu Hudaym mu nga nekk ca tundu Shaam ya suñu fa demee danañu atte ca la tukki seen tukki bu metti boobu dox ci àll bi dox bu sori ba nga xamante ni fa ñu jóge sori na te fa ñu jëm sori na seen ndox jeex xamatuñu fu ñu jëm ñu ne nag léegi li fi sës moo di ne kenn ku ne na gas bàmmeelam dugg ci ku njëkk a dee suul sa moroom ba ko defee ku ne tëdd ci sa kam yàlla dogal Abdul Muttalib xalaat ne lii daal du gis-gis bu baax te nit itam du ñàkk yaakaar ci boroomam kon nag nanu continuer tukki bi amaana yàlla ñu baaxe ñu dajeek ndox wala ñu dajeek ku ñu mën a may ndox wala ñu dox ba yem cib dëkk foofu nag la gaañ jóg ku ne takk sa warwaay sa gëléem wala sa fas ba ñu noppee ku ne war ba ñu waree di dem ba ñu ne bëri di dem moom Abdul Muttalib eh, waruwaay bi mu war ba mu ne bërët ci tànki waruwaay ba ca la ndox mu neex bale mu yuuxu nit ñi ne leen kaay leen yàlla kat ñëw na ndax ci sama tànku waruwaay bii ndox balle na ci ñoom ñëpp ñu daan daldi naan ca ndox ma luy ci seeni mbuus yóbbaale ba ñu demee nag ba nga xamante ni war nañu continuer seen tukki nit ñi ñoo ko wax ne ko inutile ñuy continuer tukki bi ndax balluk ndox mi ci sa tànku waruwaay yi àtte na at àtte nañu waaw comme dal mbiru ndox lañ du xuloo yàlla génne kiimtaan bii loolu mooy wane ne zam-zam sa teen la yaa ko moom kenn du ko xëccoog yow loolu la góor gi wax ni nabaul furaati la daa markubihi xakamun min baynihim acdalul xukkaami kullihimi mu mel nii taxul ba ñu delloo màkka beneen coow am na ndax dañu gasoon rekk ba yem ca pind ba waaye jotuñu woon a àgg ca biir jotuñu woon sax gis ndox waaye gis neen pind ba ba mu leer na leen ni fii moo di zam ñu xuloo daldi dem attewu ji yàlla feeñal kéemtaan boobu ñu dellu siwaat màkk d'accord ne ne Abdul Muttalib moom moom teen bi waaye Abdul Muttalib bi mu dellusee moom ak doomam jooju xaaris ñu ngay gas pour war a àgg nag ca ndox ma ba ñuy gas gas nanu ba yem ci ñaari kéwél ñaari kéwél yi nag di kéwél kéwéli or ñu continuer di gas ba jikk ñu yem ci ay mbubb koŋ ma mbubb yooyu nga xam ni bu ñu daan dem xare moom lañuy sol mu nekkoon mbubb yu cher ci jamono booba ñu continuer waat di gas ba jik ñu yem ci ay jaasi mu nekk itam arme yo xamanteni bu bari la buñ ko doon jaay wala buñ ko xayma ak ah, nit nak, dafa am nattu xaalis te bëgg ko lool taf ko ci xolam xolo ba wat ñu abdul muttalib nangu nañ la wainak ten bi waye nak wurus yi ak mbubb koŋ yeeg jaas yi dañu koy bokk looloo li itam coow lu rëy te fekk na kéwélu wurus yooyu buur bu ñuy wax saasaan nekkoon buuru furs ñii ne saabuur buur boobu moo ko joxoon àddiya kaaba ga waaye waju bon joju ñuy wax amr bok ci giir jurhum bañ ko daxé ci dëkk ba mu suulon mbir momu ci bobu ko abdul mutalib ca mbaax ga ak ngor ga ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du di mukk mu nangu ko seddok ñom waye nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantale mbir mi nanu def tirage ku ne ak lañ cay am mu nekkoon bokkoon na ci suñu aada bu ñu masaana juunoo ci kàddu ci mbir mu ñu war a séddoo dañu koy bantale ku ne la ci sa rekk nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indiwaat ñaari bant pour man yéen itam ngeen indi ñaari bant pour yéen mu mel ni kon séddoo bi ñett a koy def kaaba gi dafa war a am cërëm Abdul Muttalib ci boppam am cërëm waa Màkk ci boppam am seen cër ga ak deretu rasulullah bi nekk ci moom tax na du goree di mukk mu nangu ko séddoog ñoom waaye nag daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantale mbir mi nanu def tirage ku ne ak lan cay am mu nekkoon bokkoon na ci suñu aada bu ñu masaana juunoo ci kàddu ci mbir mu ñu war a séddoo dañu koy bantale ku ne la ci sa rekk nga am ko kon jox ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indiwaat ñaari bant pour man yéen itam ngeen indi ñaari bant pour yéen mu mel ni kon séddoo bi ñett a koy def kaaba gi dafa war am cërëm Abdul Muttalib ci boppam am cërëm waa Màkk ci boppam am seen cër noonu ñu d'accord ci indi ñaari bant pour kaaba ga indi yeneen ñaari bant pour Abdul Muttalib indi yeneen ñaari bant pour waa Màkk ñu daldi dem nag ci benn xërëm bu ñuy wax Hubal xërëm boobu nag mu nga nekk ci biir Kaaba ga am na benn teen bu fa nekk ci biir Kaaba gi foofu la xërëm bu mag boobu ñuy wax Hubal foofu la nekk ah ñu tirage nag seet kenn ku ci nekk la ci yàlla di sédd boobu mbokk yi ngeen xam ni lislaam ñëwagul yonent bi juddoogul ndax kii ñuy wax Abdul Muttalib moo jur ki war jur yonent bi te moo di Abdallah te booba sax Abdallah juddoogul kon jamonoy jaahiliya la woon jamonoy réer la woon moo taxoon ñu dem ci xërëm boobu pour mu àtte leen pour ñu def fa seen tirage waaye ci kàttanu yàlla ak mbaaxam akub maandoom moom yàlla ba ñu defee seen tirage kaaba ga moo gañe ñaari kéwélu or ya ah leneen la des yépp nag te moo di mbubbu koŋ ya ak jaas ya Abdul Muttalib moo ko gañe ñoom waa Màkka amuñ ca dara kon amuñ ca teen ba dara amuñu itam ca alal jéggéen ni ca ngas ma dara te moo di ñaari kéwél ya ak itam tabaarakallaahu mbubbi ya ak jaasi ya waaye Abdul Muttalib ci ngoram akuk mbaaxam tax na la kaaba moom jëlu ca dara xam nga léeg-léeg nga gis kuy woote ne day tabax juma ah ñu dajale xaalis bu bari jox ko la ñu joxe joxuñu ko ko moom dañ ko joxe pour jumaa ji waaye nag fokk mu wut ca cëru boppam am loo xam ne daal eh, dana ko ca rocci dugal ko ci biir këram waaye Abdul Muttalib boobu lislaam ñëwagul waaye bu njëkk ba mag ñi ngor rek la ñu amoon muy seen diine ngoram mayu ko woon mukk kéwél googu nga xamante ñaari kéwél yooyu nga xamante ni kaaba gaa ko gañe mu koy jël di ci am lum mu ci rocc wala déet dafa jël ñaari kéwél yi ca la defaree buntu kaaba ga rafetal ko ba muy leer xam ah loolu itam nekk maandu gu yem ñëpp ndax boobu moo yor kaaba ga méngoo miru kaaba ga su ko itam dagg ca or ba loo ni dana ko def ci boitam wala mu seet mu ko jaayee waye dal kum kaaba gaa ko mom mu jox ko kaaba ga rek te tok xaar yàlla loolu la gi wax ba'da al-hafr min الحفر wa adru'an wa suyufan fi ihtisamihim منيرا اجسنا الغذالين نياري كيول بعد الحفل تغناو بمو غاسي بانوبي كيول يوينك من ذهبين نينك كيول ورسل وادروعا جسنا فيتم اي مبكم وسيوفا اكي جاسي واي في اختصامهم نينك نيوم وامك جسين ترخلو تخچو على الجوجو فين wakaana te nekkoon na saasaanu buur bu ñuy wax saasaan di buuru furs aw saa walla buur bu ñuy wax saa buur muhdiyaha moo ko joxoon kado li kaabatillaahi ñeel yàlla ga jàlla màgg na allahu yàlla dul karami kadi boroomu tedd nga waaye abdul muttalib ca mbaax ga ak ngor ga fa qaala mu ne leen ji oo indi leen bi aqdaaxin ci ay bant ka aadatina comme nañu ko baaxoo woon a def fa man képp koo xam ne xarajat dal na lahu di ko ñeel moom bant ba yaxud mu jël cëram walla yudami te defu ko gotti defu ko tooñ gis naa ni indi ñaari bant lil bayti pour néeg bi su mas naa ni topp ngeen indi ñaari bant lii pour man wasnaani ngeen indi ñaari bant lakum pour yéen aydan ba tey su ko defee fa ci ñu dem nag ñu dikke ak bara sonami ba gën a mag moo di hubal waaye ba ñu tirage xaadat gañe ni ñaari kéwél ya baytullahi néegu yàlla ba te mooy kaaba gi kaaba ñaari kéwél ya summa tama baqaa la des nag di cër yëpp li cheybata cheybat alhamdu moo ko moom te moo di abdul muttalib min duni ishtirakihimi ci lu dul ñoom ñu cay bokk di ca am dara wa aslaha albaaba ci la defar nag wa aslaha ci la yéwénal albaaba buntu kaaba ga baabal bayti te moo di buntu néegu yàlla ba zayyanahu rafetal na ko bi dalika dahabi ci yooyule or almadkuuri ya di ñu tudd zahima mi te moo di borom yitte nag ci taxaw pour liggéey kaaba gi ci alal jooju bañ cee dugal benn tappale waaye mbir mi dal Abdul Muttalib te muy kilifa ak Màkka tiis na lu tax li muy nekk nekk kilifa am na lu ko manqué moo di amul ay taaw yu tekki benn doom rekk la am mu di xaaris foofu nag xolam jeex ci ni waa Màkka jëflanteek moom ak niñ ko sonole mu daldi nidar ne man de maa ngi ñaan yàlla su ma mayee fukki bant te moo di fukki doom suñu demee ba màgg danaa ci rendi kenn ca kaaba ga pour jaamu ko waaye loolu mu ñaanoon yàlla yàlla xëy na rekk may ko ko may na ko fukki doom yooyu ba mu ko mayee fukki doom yooyu nag lu taxoon mu doon ñaan yàlla fukki doom yi pour ni ko waan màkka noonoo ak ni ñu ko bañee ak itam liggéey bi nga xamante ni bëgg na ko taxawee ci wàllu kaaba gi ak liggéeyu këram fukki doom yooyu mën ko cee jàppale loolu rekk moo doon sabab ci mu ñaan yàlla loolu waaye yàlla xëy na may ko fukki doom yooyu doom yi nga xamante ni moom la ko yàlla mayoon nag wax ne ni fukki doom yu góor lañu ak juróom benni doom yu jigéen mayoon na ko doom bu ñuy wax Abbas may na ko itam doom bu ñuy wax Hamza may na ko doom bu ñuy wax Abdallah mi jur Seyduna Muhammad موجر علي بن ابي طالب ابو طالب نك تورم دغ دغ عبد مناف لان كوي واخ ماي نكو دوم جي ني واخ زبير ماي نكو دوم جي ني واخ حارث ماي نكو دوم جي ني واخ حجلا ماي نكو دوم جي ني واخ مقوين مقوم ماي نكو دوم جي ني واخ ضرار ماي نكو دوم جي ني واخ ابا لهب موم لا يالا خاص تي تبت يدا ابي لهب abu lahab turam dëgg-dëgg mooy abdul uzza ñooñu ñoo di góor ñi fukk lañu bu dee jigéen ñi may na ko doom ju jigéen ju ñuy wax safiya may na ko doom ju jigéen ju ñuy wax ummu hakim ñu koy dàkkantalee al ñu koy dàkkantalee bayda may na ko doom ju jigéen ju ñuy wax atika ak ku ñuy wax umayma ak ku ñuy wax arwa ak ku ñuy wax barra mu mel ni kon danga ci daldi daal di góor gi tabaarakallaahu ñaan googu mu ñaanoon yàlla ak nidar googu yàlla matal na ko waaye ñu ne Abbas yaayam mu ngi tuddoon Nukayla moom Abbas ak Diraar seen yaay mu ngi tudd Nukayla ñu ni bu dee yaayu Hamza ak Muqawwim ak Hajl moom ñu ko daan dàkkantalee Xaydaq ndax li mu bari ni mu nekke woon jigéen ju bari yiw kon jigéen la woon joo xam ne jigéen ju bari barke la woon wante Safiya moom ak Hamza ak Muqawim ak Hajla ay doomi ndey leen ñoom ñoo bokk ndey ak baay moom Safiya mi jigéen la joo xam ne defe naa ne képp ku suivre bi ñuy waxtaan ci xare Uhud bi ñu reyee Hamza moom la yonent bi waxoon ne bu xabaar bi gaaw a yegg ci moom ndax jigéenam la te itam su mbir mi yeggee ci moom dana ko metti dana tiis ci moom moom Safiya jigéen ju jàmbaare la woon exemple la sax ci wàllu yar xam naa du ñàkk bis ñu waxtaani histoire am moom soxna si ñuy tuddee Safiya bu dee yaayu Abdallahi mi jur Seydina Muhammad na ngeen jàpp ne Abdalaay ak Abu Talib ak Zubayr ñett ñii dégg nga ñoo bokk ndey ak baay ndax Fatima mooy seen ndey waaw Fatima seen ndey ñu ne itam mboolem jigéen ñi ñu fi lim di Ummu Hakim ñu gën ko xam ci Bayda ak Atika ak Umayma ak Arwa ak Barra ñii itam ñok abdallah ño ndai ndey ak bay ndax soxna señuy wax fatima mo leen jur bu harith mom ndeyam mu ngi tuddu samra samra bint jundu bu abou lahab nak di say say bu bon bi mom abou lahab ni ndeyam mu ngi tuddu lubna mom danaka kenn la ci ndeyam euh, moom la yàlla xas ci tabbat yada abi lahabin wa tabba ma agna anhu maaluhu wa ma kasab kon tabaarakallaahu mbokk yi kon ñu gis ne lu lu waay di ñaan yàlla rek na nekk lu baax ndax léeg-léeg nga ñaan yàlla rek yàlla nangu ñaan yàlla daal nangu ne ñaanu Abdul Muttalib ci fukki doom yooyu léegi nag li fi des moo di ne Abdul Muttalib limu ah, nizaron yalla indi nako ndax dana ray wala du ray melni lol le gor ناذر نذر إذ هم اجتمعوا على أذيته من شدة الأضم فنال ما رام من مولاه وعشرة أبناء يعينونه في القتل والخدم وقد تكرر بعد النيل رؤية من يقول أوف الذي عاهدت واعتذمي فاغتم غما شديدا جامعا بهم مساهما خارجا بالوالد الكرم مني وكان نكون موم عبد المطلب ناذر نذر دون نذر أك نذر دون نذر أك نذر idhumu ba nga xamante ni ñoom waa Makka ijtamau dajaloo nanu komkaloo nanu ala adiyatihi ci na mu ko lor min shiddatil adami ngir taruk noone bañ ngiñ ko bañ rekk tax nañuy ñuy komkaloo saa su ne di ko sonnal ci la ni daroon pour yàlla may ko fukki doom waaye fan naa la am na maaraama la mu sàkk woon ci min mawlaawu ci boroomam la mu am lan la asharata abnaa in fukki doom yu góor يعينونه يو خامني دا نيو كو ديمبلي في القتل تي جان تي جمار لوك وا مكه تي تيون بي نيو كاي تك والخدمي اك لي مبيرو يتم ليغي كابا نينا مو ملني دا فا خاوانا نيغليجي مبيرمي مام عبد المطلب نخ دوم يومبل نمو داليوون Seydina Ibrahim ndax dafa niseroon ne bu ko yàlla mayee doom dana ko rendi jaamoo ko ko mbir mi ah dafa mel ni kon famille bi njig jigéen lañu ndax Ibrahima mii seen maam niseroon na ah Abdul Muttalib itam niseraat na kenn ku ci nekk nag sa mbir mbir mu yéeme la ndax bala yàlla mayee danga xaw a mel ni lu finiti ba nga xamante ni yàlla dogal na mu xaw a yéexe mbir mi bu tëddee rek dégg baat bu koy wax naan ko la nga diggante woon ak sa borom de matululoo ko bis bu njëkk ba ba ko baat boobu feeñoo ci gént dafa xëy ne neen ah daal di rey xar gàmmukat yi danañu koy wax ca ñaareelu fan ba la ko feeñu woon feeñuwaat ko mu xëyaat suba rey béy leneen eh, ca ñetteelu fan ba ah la ko feeñu woon ci gént feeñuwaat ko mu xëy rey ganaar ah kon de moom mel na ni defe na ne sarax yooyu dana tax bakkanu Abdoulaye rëcc te kat Abdoulaye la war a rey coow li bari na waaye ba mu tëddaatee gént nag la mu jis moom tax na daf ne ñokket ne daal li fi sës moo di ne naa rey kiñ ma reyloo te moo di naa matal sama tabarkalla nizar bi moo tax góor gi ne waqat takarrara baamtu na baada nay li gannaaw ba ko yàlla mayee ba mu am doom yooyu lan moo baamtu ru'yatu man géntub dégg nga jëmm joo xam ne yaqulu mu ngi koy wax naan ko aw fi lladi matalal la nga xam ne ahatta dégg nga wala réewoon wala te woon nga ko yàgg sa boroom waxtazimi te nga taxaw nag temm taxaw bu ànd ak dogu pour matal lii nga diggante woon ak sa boroom te moo di ne boo amee fukki doom danga ci rey kenn jaamoo ko ko nee na nag bëggante gab baamtoo ci moom bu tëddee rek dégg baat bi naan ko matalal li nga diggante woon ak sa borom nee na loolu tax na faxtam ma mu tiit faxtam ma mu jàq xaman njàqare shadidan bu metti jaamian muy aji dajale bihim ca doom ya musaahiman dégg nga mu bantale leen nag waaye bu leen bantale daal def tirage xaarijan bant ba dana génn dal bil waalidil kërami nee na ca ndey ci wayjuru aji tedd ja kan mooy wayjuru aji tedd ji te mooy Abdoulaye moom mooy jur aji tedd ji kan mooy aji tedd ji moo di Seydina Muhammad fu ñu defee tirage bi rek ba noppi rek bant bi daal di dal ci Abdoulaye bu ñu jëlee jaxasewaat bu ñu génnee rek muy Abdoulaye moom daal mel na ni mbir mi daal miracle la te kat su génnoon benn yoon dal keneen ci doom yi ku dul Abdalaay moom Abdul Muttalib bu lay rey sax bu bu buy def mbir ma du hésité ndax ni mu bëggee woon Abdalaay bëggewu ko benn doom bëggewu ko Abu Talib du Abbas du Zubayru du kenn ni mu bëggee woon Abdalaay mbëggeel gu jéggi day la parce que boobu leeru Seydina Muhammad moo nekk ci moom foofu nag la ne mbir mi daal du mbir mu yomb man daal ni ma ko jorte ak ni mu doone wuute na kon nag li fi sës mooy naa dem ci xërëm boobu ñuy wax isaaf ak naa ila ñu jéem a seet nag bu ñu fay def bu mu ñëwee ci xërëm boobu te moo di isaaf ak naa ila nee na mu nam matal nag loolu mu giñoon te ni daroon ko ci digganteem ak boroomam te moo di fexe ba ren di kenn ci doomam yooyu te doom jëde Abdalaay moo tax góor gi ne wa am ma dëtmal na ndax wa isaafin ci wàllu isaaf xërëm la su ma naa ilatin topp xërëm bu ñuy wax naa ila diggante isaaf ak naa ila fa la zam-zam nekk ci jamono booba lu mu namoon murida ifa idaka nadri muy aji namm matal loolu leen nidar wal xasami ak ngiñ loolu waaye ba mu demee ba nga xamante ni rey dong ci teg moo ci des ndax xam na ne Abdoulaye lañu war a rey takk na ko ba mu ne ngodd ba nga xamante ni rey dong ci des foofu nag la xol waa màkk yépp jooy ci ne gone gii de bu ñu ko reyee du baax ñu ne ko lii daal bu ko fi def ba mukk ndax kilifa nga ci màkk te bis boo ko defee dana fi nekk aada waaw ku fi amati doom rek fukki doom rekk bëgg jël kenn ka rey te bu fi nekkee aada itam da rey da nga lor itam ñi la ñiy ñëw sa gannaaw mu nekkoon kon nu ñuy def ñu ne ko nen dem Xaybar am na fa buxaaba boo xamante ni suñ fa demee mu seetal ñu mbir mi su boobaa nag lum ñu wax rek ñu jëfi ko ah ñoom ñëpp nag. ñu daldi la préparé tukki war seeni géléem war a dëgmal nag dëkk boobu ñuy wax xaybar jëm ca gisaanikat boobu bi ñu ñëwee gisaanikat bi recevoir na leen ñu war a waxtaan ba ñu waxtaanee Abdul Muttalib wax ko mbir mi ni mu demee yépp moom gisaanikat bi mu ni ko ñaata diye ngeen daan jox joxe bu fekkente ne namm ngeen ay jot nit ku ñu na a rey lu ngeen daan joxe comme diya ñu ne ko xanaa fukki giléem mu ne kon kay dellu leen su ngeen delloo ngeen jël ki ngeen waroon a rey te moo di Abdoulaye ngeen teg ko fële su ko defee ngeen jël fukki giléem teg fële su ko defee ngeen bantale sa bu bant bi génnee dal ci abdallah ngeen dolli fukki gelem. bañu ko dé def di def di def mo né bu ngeen ko défé ban bu ngeen ko défé nak ba ba ngeen di gis nak bant bi di dal ci ya bu boba ngeen xam gelem yoyu ngeen rendi moy tolloog sarax bi ngeen wara gennel abdallah pour bakanam mucc kon nga xam ne bu doon ne milliards yi la itam milliards ray bu dee ni itam tabarkal la ñaar fukki giléem la ñaar fukki giléem leen war a rey waaye nag mu ngi aju ca nañuy bantale bu fekkente ni daal bantale bi feek mu ngi dal ci Abdoulaye di leen dolli par fukk waaw su demee nag ba dal ci giléem yi nag ngeen xam ne loolu ngeen war a rey pour mu jot bakkanu Abdoulaye moom la góor gi wax ni xaaluuhu ay noonam xaaluuhu ay noonam gis nga ñaari xaaluuhu yi dañoo wuute قالوه قالوه لا تفعل بذا أبدا كي لا يرى عادة في فهرة لم ترمي قالوه بنجكبي من يلي فري قالوه بنيارل بي وخ لي فري نخ ودمي سورة الضحى يالاني وحني والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى القلى فوفو mbañeel lay firi moo tax mu ne xaaluuhu ay noonam te moo di waa mag xaaluuhu ñu nga naan abdul muttalib laa tafaal bul def bidaa ci rey gii nga nar a rey abdulaay abadan ba faw bu ko def mukk kay yuraa ngir bañee fa gis rey googu aadatan mu di ak mbaax fii fihra ci gir quraysh mbaax goo xam ne laa tërimi du fi dañ ba mukk te kon yaa ko indi mu ne kon nu ñuy def ñu ne kon nam day nanu wéy li xaybara jëm dëkk boobu ñuy wax xaybar shayba yow shaybatal hamd fii dañ ko tarxiim ba pare dindi yaa nidaa gi maanaa yaa shayba nam day nanu wéy li xaybara jëm xaybar yaa shaybata yow shayba fiiha nekk na ca dëkk boobu ñuy wax xaybar kaahinatun buxaaba mustamirina ñuy woy nam ma jëfe nag bi ma xaalat ca lam leen wax moom ndaw sa ca jisaana ga zawi sala mi ñuy boroomu lu ci waxam xaalat ndaw si ne leen waaw fakkam diyatun kuntum tëdduna biha fakkam diyatun ñaata diya kuntum ngeen nekkoon tëdduna daan ko daan diyaal diyaale biha ci moom xaalu ñu ne ko xaalu laha ñu ne ko achatul abal fukki gëléem fukki kile min na amin ci juuf moom leen daan joxe qaalat ndaw qaalat lahum ndaw si ne leen farji'u lil ahli kon dellu leen ca mbokk ya min ajalin ci lu gaaw a gaaw wa saahimuuhu su ko defee ngeen bantale ko nag ak gëléem yi wa saahimuuhu ngeen bantale abdalaay biha ak gëléem ya tardaw su ko defee dangeen ngeen d'accord da ngeen nangu nag minal xakami nee ci atte ba nee na mu ne leen innal qida inil qidaaxu bu fekkente ni bant ya xarajat dal na ala mahbubikum ci seen soppe bii di Abdoulaye ngeen xam ni bëggu leen koo rey ziidoo na ngeen dolli fa ziidoo topp ngeen dolli wa ziidoo topp ngeen dolli duuna ma sa ami ci dudul benn yokkat feeg bant baa ngi dal Abdoulaye di leen dolli rek fukk par fukk fukk par fukk xata ida ma alayha sahmu xataa ida ma ba boo boo xamante ni xat xarajat génn na asëhmu dégg nga bant ba bantu tirage ba dal na alayha ci géléem yi bu boobaa nag fal tanxaruha ngeen loj géléem yi ngeen rendi ko ndax inna allaha wér na ni ki yàlla kat dul kërami boromuk mbaax la boromuk tedd nga la moom yàlla waaye li ñuy bantale yépp Abdul Muttalib mii daanaka amul benn sago mu ngay ñaan yàlla rek naan yàlla waay waay yàlla bu yàlla boo ma nattoo may rendi sama doom ji bëgg naa ko lool suma ma sañoon daal du dee mu nga naan laa ilaha illallah mu ngay tudd yàlla rekk lu tax ndax rek yàlla musal doomam boobu di Abdoulaye ndax boobu leeruk Sayyiduna Muhammad gi nekk ci moom tax na ku ko ji sopp ko ndekki Abdul Muttalib lim koy sopp sopp yépp waa Makka ko ko gën a sopp waaw moo tax góor gi ne walam yazal daa'iyan mawlaahu mubtahilan aw faraja allahu ma yaxshaahu min gumami walam yazal dañul daa'iyan di ñaan yàlla di daa'iyan di ñaan mawlaahu boroomam mubtahilan mbir mu mi aji dégg nga tudd baatu allah ak laa ilaha illa aw faraja ba wuññi sax allahu yàlla maa yaxshaahu la ko muuroon min xumami ci njàq bi ñu def noonu ba nga xamante ni mujj na ñuy dolli di dolli ba bi gëléem yi àggi ci téeméeri gëléem bu ñu tirage rek tabarkàlla bant ba dal abdalaay ñuy dolli muy ñaar fukki gëléem ñu tiirawaat bant bi dal ci abdalaay ñu dolli muy fanweeri gëléem ñu tiirewaat bant bi dal ci Abdoulaye ñu dolli muy ñeent fukki gëléem ñu tiirewaat bant bi dal ci Abdoulaye ñu dolli muy juróom fukki gëléem ñu koy def di ko def di ko def di ko def tabarkalla ba bi mu àggee ci li mu téeméer ci la nag tirage ba nag soog a dal nag ci gëléem ya Abdul Muttalib ne alhamdulilah comme dal na ci gëléem yi alhamdulilah sama doom ji mucc na waa Màkka yépp ne alhamdulilah ñu loj gëléem yooyu nag gëlëm yooyu lañu rendi bi ñu ko rendee ñu daal koy sarax nit ñi ak rabu àll yi maanaam gëlëm yi yëpp téeméeri gëlëm yooyu waa màkk mënuñu ko woon dunde ba mu jeex lii dañu ko bàyyee waa dëkk bi néew ji doole yeeg miskin yi lekk ci la ku ne dagg ci ndawal yóbbu sa kër la ca des ñu sànni ko ci àll ba bukki yeeg yéeg yeeg yëpp tabaarkàlla lekk ci ñu ne nag giléem yooyu jot bakkanu Abdoulaye moo jotaale bakkanu képp ku di jullit ndax bu Abdoulaye génnoon àdduna kon Seydina Muhammad du feeñ te kon Seydina Muhammad bu feeñul kon àdduna bi àdduna lëndëm rek lay nekk te loolu mënul nekk sax kon tabaarakallahu mbokk yi moo tax yonent bi sallallahu ñu ko daan woowee eh, maanaam yow sëtu ñaar ñu waroon a rendi ñaan ñu ñu waroon a rendi ñan lanu moo di Ismaayil ak Abdallah mi ko jur ndax Ismaayil maam la ci Seydina Muhammad Abdallah itam bàyyi la ci Seydina Muhammad te ñoom ñaar ñëpp daanaka seen histoire benn la ndax ku ci nekk sa bàyyi dafa nidaroon pour boo juddoo mu rendi la jaamoo ko yàlla moo tax góor gi ne لما إلى المئة الأجمال قد وصلت حل القداح عليها فعل محتكم من بعد ضرب ثلاثا كان ناحرها مسوي الناس والأوحاش من لحم لم تعد لم تعد تلك العشار الكومة إن فداءه فداء ذوي الإيمان كلهم ثاني الذبيحين إسماعيل قال بذا الناس بالذبح عند التربة الكرم wa وقيل إسحاق هذا قول من نسبوا الذبح في إيليا نهج اله نهج الهدى استقمي mu mel ni kon mbokk yi yonent bi sallallahu comme niñ ko waxee war rek moom leen daan wooyee yab na dhabihayn benn kaw ko mas na ko ko wooyee fekk ko muy séddale màng gi mu ne ko yab na dhabihayn yow boroom ñaari maam ya ñu waroon a rendi de maa ngi lay ñaan pour nga jox ma sama wàll ci li ngay séddale mu mel ni kon mbokk yi ci wàllu gàttal loolu moo di histoire tabaarakallaahu Abdul Muttalib ci gas bi mu doon gas zamzam te yàlla won ko ko ci gént ak itam la mu nisaroon ci fukki doomam yooyu doon ko dimbali tabaarakallaahu ci wàllu tënk eh, loolu leen ci